daje point de presse bi daña déclaration bii nga xamante ne moom laay def mooy ñëpp xam nañ ne alternance bi muy am le 24 mars am nañu askan gi wóolu woon dénk leen Sénégal ñetti weer jotagul askan googu wóolu leen am naqar am njaqare am mettit mu waral tey réew mi follaal mu ngi metti ku la bor du la fay loo jaay du jar loolu lijjanti du sotti fii la Sénégal tollu tey tey fi réew mi tollu tey ndaw ñi yaakaaroon ko muy marchand ambulant yi béykat yi yaakaar ko ba si dawalkatu jakartamaan yi suñu yaay suñu mag yi suñu rakk yi suñu jarbaat ñu jël askanum lëmb jaay leen ab projet boo xam ne existé wul que seen imagination mooy tas yaakaar bu bon bu mag mënta weesu loolu. ma jàpp ne Sénégal gi ñu dëkk Sénégal gi ñu juddoo Sénégal gu ñu màggee yaroo fi tekkee fi am fi baat noppaale ko acteur nga noppaale ko complice nga est-ce que dañu nar a toog di continuer ñu ñuy noot. si di wax saa su nekk loo xamante ne du dëgg tey li xew Colobane askan ñëpp am gàcce su ma sañoon réew mi ñu nekk bu ñuy fal ab ndaw mu jiite référence ngay doon bu ñuy fal ab ndaw roykaay ngay doon ñëpp xam nañu bi falee président Diomaye bépp ndaw amoon na mbégte parce que ñu jàpp ne suñu air moo sonné mais tey ab premier ministre déplacé dem Colobane ñu yekk ko musiba képp kuy ndaw noppale ko wax dëgg yàlla xam nga ne am nga métit ma jàpp ne salaire dafa neex toog di ko ay millions ku jàpp ne danga may bàyyi sama poste continuer di nopp askanu Sénégal man Sénégal lu ma am moomu ko gënal ànd ak ànd ak jakaatamaan ñuy toroxal ànd ak suñu béykat yu ñu tas seen yaakaar ànd ak marchand ambulant yu ñu tas seen yaakaar ànd ak suma papa yi ànd ak suma yaay yi nga xamante ne ak ndaw yi nga xamante ne tey yaakaar gi ñu amoon tas nañ ko ma des ak ñoom jiital suñu borom moo ma gënal may toog di noppi di ko ay millions moo waral ma jël décision tey si bés bii démissionner sama poste président du conseil d'administration au niveau de l'office national de formation professionnelle ngir feetewoog askan gi nga xamante ne tey seen yaakaar tas na am nañu naqar ci li nga xamante ne moo leen jot ma leen di wax ne fa ma ne woon démb falaa nekk tey mais ka ma dénkoon wóoluma muy son excellence di son mag di suma xarit muy le président Macky Sall maa ngi koy gërëm di ko sant ci confiance bi mu amoon sur ma modeste personne ma koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm te askanu àdduna ngërgal képp xam nañu ne yàlla atte na ko askanu Sénégal bi nga xamante ne dañu jëloon ay waxum naka saka ndëndëm jëloon ay fenn weccoo ko dëgg ba jëlee ko fi tey yàlla ne ko toogal man mi fale ma joxoon leen ma joxoon la askanu Sénégal ñu yàq la teg façon tuuma bu nekk sa ndodd dinaa la fi jële indi fi loo xamante ne ñoom ñi la doon xeex te la nga liggéey ngir askan bi liggéeyal ko ngir Sénégal tey sama samay mbir ak samay pexe dina teg dëgg ba askanu Sénégal xam ko mooy tey li li ngeen di dund tey man nag maa ngi seen disposition disposition Sénégal laa nekk pour liggéeyal askanu Sénégal yabalu ma kenn mu taal ay édifice public yabalu ma kenn mu lakk dëkk bi yabalu ma kenn mu toj yegalu ma kenn naxar dëgg mooy njëkk te dëgg mooy mujj lépp luñu constitution bi mel d'une manière démocratique danaa ko ànd képp ku bëgg senegal ñu àndandoo liggéey ba delloo ñëpp seen ak ak seen yelleef jàpp leen ni seen doom pare na taxaw na pour ànd ak yéen fen gi ñu leen jëndee ñu teggi ko gisal ngeen ko seen bopp ñu doxal dëgg ànd jubbanti senegal ma jàpp ne mbir mi tàmbale na dégg ngeen nag lu nekk waaye du ma si tontu li tax du ma si tontu mooy dama sant yàlla suñu borom. ñi ma yóbbu woon ñu ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn si ñoom daf ma indil benn kaamil bi ma indilee alxuraanul karim ma toog ubbi ko ma daj si benn sooratul boo xamante ne suñu borom si la doon yónni yonent yàlla Moussa ba muy daj ak Firawna muy page cent soixante treize ak cent soixante quatorze dama ko ubbi rek santaat yàlla suñu borom da ngeen déglu ne tuuma bu gënoon ñaaw yàqoon nañ ma ko ma taxaw doon lu ma doon tey laa gën a gëm sama bopp tey laa gën a gëm li ma doon tey laa gën a taxaw tey laa gën a taxaw tey laa gën taxaw tey laa laa gën taxaw ngir xeex ngir intérêt Sénégal man sama xeex mun naa ko xeex comme woo nañ ma nag si xeex danaa xeex ak ñoom si kàttan yàlla suñu borom